ñett fukki at sa taax mu me moo lakk la fa nekkoon ci cantine lakkaale lu mu gàtt-gàtt téeméeri cantine ya teg na lépp lakk ba doonub doom la Sénégal nañu ñu moom yi lakk ñu ci joxar bi baram tuuma moo di kilifa yi réew mi ndax nee nañu lu jin njaaga ñoom ñooy njaak marché boobee la ko lakk seen loxo génnu ci meerum Ndakaaru di Xalifa Sàll ngir xooli lakk gaag la mu fa yàq waaye bu yëgoon du ko def ndax ba mu ne jalañ ca marché Sandaga ca bi lakk biig yàlla bax ko mu giraawaali dina fa am enquête ne ko la fa am romb na giraawaali ne téeméeri cantine ak lu tekk tàkk na ba doonub dóom doomi Sénégal mooy ki ñu njëkk atte ci tribunal immigration ba ñu samp ca France libération xëy ko tuddee tribunal immigration ak humiliation ndax barab la boo xam ne dañu fay toroxal doomi Afrique yi doomi Sénégal ba ñu fa njëkk atte yéenekaay bi la ñu Boubacar la tudd ba ñu ko dàqee ca la ko boole ak sànni ko ci entrepôt bu aéroport Roissy voici Aminata Touré ci enquête yéenekaay ubbil journal bi yéenekaay bi nañu premier ministre bu Sénégal di Aminata Touré que déclaration politique générale bi mu war a def altine bii di ñëw Aminata Touré wuti wuta ku ci siis buy maas ndax fi ñu koy xaar bari askanu Sénégal nekk ci jafe-jafe ndaw ñi amuñu xëy dund gi seer na njàng mi di soog a tijji ñu cee seentu jafe-jafe loolee lépp journal bi di enquête nañu ñoo ngi export marché bu mu gagné woon toll ci fukki milliards ak ñent ngir wutal waa kaw ga boobee gannaaw ba ci autorité de régulation des marchés publics ànd ak moom cour suprême neenal na lépp weddi ARMP jële marché ba ca loxoy Lucky Export laar Sénégal nañu marché fukki milliards ak ñett moo dem ci Mali foro ma dem ci stade yéenekaay wax ci wàllu tàggat yaram football Sénégal ak Côte d'Ivoirien yi yéenekaay bi xëy jox Antoine Bell dib ndax football lu ne mën na cee xew li xew ci lamb ji ci laa jëm ak sunu lamb mi xëyëb laaj ci Yaxya ci ñeent fukki at te ci la jóge ndax dana a jógaat ki ko mujjee daan bi triple S ñu koy a jox di ci a Sénégal mooy li ñu populaire ne moo am démb ci benn ci watay tataye journal bi ñu moo di ligne 39 bi jóge jógee Sandaga dem jàmmalaay ak Parcelles Assainies benn policier bu sol tëneem moo ca dugg bu mu duggee gis ci oto bi benn xale bu jigéen bu dangalu ba nekk ca taxaw jàppandu policier bi ñu jege ko teg ko ko di ko riisu journal bi nañu xale bu jigéen bi nu ne dawee na ko policier bi moo dem ba mu yàgg seetlu ne waa oto bi ñu ngi koy bàyyi xel ca la wàccee populaire nañu waaye loolee am na lu ko gën a dee ubbil journal bi fi yaa nga xewe ca kaso ba ca Kédougou gardien kaso ba moo naan ba ne wang mandi ba xamu muy taxaw jël kaso bi dem na day tijji cellule ya ngir génne